tang bon di woe tila tate to namalun tang bon di woe saranya tila tate to ngajibenya wonya semana nuntauje ngamirenya wonya semana nuntauje ngajibenya wonya semana nuntauje ngamirenya wonya semana nuntauje namalun tang bon di woe saranya tila tate to namalun tang bon di tila tate to Tala jati yar milali ya bandi jati Run taw binala jati yar milali ya bendu jati Lillu taw na nata jati Ala tambindi kono tu jati Al na Alnaye nyo kontong Ale kontong di alang Ale sinyo lufanan kumandi Wanaye nyo kontong Dan nillu taw bitala jati Ala bunya punya fujanna besela bondi woe saranya tila tate toe nuntangu bondi woe saranya tila tate toe ngajibenya wonya ntemana nuntauje ngamirenya wonya ntemana nuntauje ngajibenya wonya ntemana nuntauje ngamirenya wonya ntemana nuntauje nuntangu bondi woe saranya tila tate toe nuntangu bondi woe saranya tila tate toe Lamine euh, ñaw nag moom euh, lu am solo la te man dama ko bëgg a ci suma xol. Mhm. te soo bëggee sañse rek. waaw nga bëgg a ñëw. waaw te euh, ñaw soo ñëwalee nit ba mu kontaan. Mhm. moom it mu sol ko ba nit kontaan ci moom. waaw kon dafa mel ni am nga ndam boo def. dëgg la taacu leen loolu waaye. te man maa li ma ñaan rek ci àddina mooy képp ku ma ñëwal. Mhm. bugga naa nga kontaan waaw te yàlla def na ñaareel ku ma ñawal mhm. di nga ma indil soo ma indilul fukkay di ma indil beneen fu mu jaar ñeneen di ñëw ñu yokk si loolu nee na te loolu li mu miin rek mooy kon li maa ñaw nit ñi bugga nañ ko waaye ma jël opportunité bi tam euh, pour gërëm gërëm his excellence bi président mhm. gërëm tamit first lady bi ak euh, madame Zainab Yaya Jammeh mhm. parce que am na programme bu ñu fi defoon yàlla dogal mënu ma ko woon a fekkee ndig ndog ndog bi amoon waaye euh, fashion designers yi liñ defoon macha allah ñëpp gis nañ ko waaw te ñoom itam taxaw bi ñu ci taxaw gis naa ko mm. dëgg la léegi nag yàlla opportunité bii la ma war mun a may mm-hmm. ma mun a gërëm leen ci on behalf of Fashion Design Association saa you hear that saa dégg ngeen ko waa State House yi taxaw taacu leen loolu taacu leen loolu taxawoon nañ ñu taxawoon nañu woon ci programme bu demee nii lañ defoon although ñun suñ bos it was a gala dinner waaye ñëpp uy si woon nañ mhm. so ma jël opportunity bi as president of fashion design association pour gërëm ñëpp Gambie ñëpp ñi ñëwoon teew ci eh, jamono boobu ak dooli ñu ak seen alal ak seen ñëpp balaa président bi dem ma jël this opportunity ah man lu tax ma sol lii nii I was very happy dama nekkoon fii ñu oo ma si gannaaw ma am something like this all of my life bu ma juddoo ba tey lii lay first time designer ñaw dara bu may ma ko su leen neexee nag ngeen tàccul ma designer bi first time in my life ku ma ko may nag mu ngi tudda Sirif Cissé nekk si brousse bi toon table waaye du man rek la solal fii ñu ma àndal ku mel ni Alimatu saf ko nekk ñëpp xam ko ma bàyyi ko mu dugg si biir bàyyi leen ko loxo nag ah kii mooy Alima Saf Connect tàccu leen bu baax moo nekk Saf Connect moo Lamin Cham GRTS marketing seen marketing manager moo jàppale si gannaaw ba ngeen gis programme bi rafetee nii ku woyof ku baax mu na teeru nit ñi torop tax li yëpp mun a am tàccu leen ma Sadibou Jammeh tàccu leen ko waay tàccu leen ko bu baax du du marketing rek daf ma dee. soo leen ko tàcculee bu baax daf ma ol peng ne su ma demee dina am discount. Ismaila Mane. Modou Ndiaye GRTS marketing. jërëjëf xanaa di leen gërëm di leen sant. di leen ñaan rek ñuy yàlla def euh, programme bi continuer. amiin incha allah defal luñ ci bëgg rek yàlla ah, defal ñu. 20 secondes décembre nga ñëwaat yeneen lu ees. incha allah waaye bii nag. magazine bi is out Tobaski de ngeen prepare lool. mun ngeen a jëm si ñuy yëpp seen sopp di ngeen ko fa fekka dañ ko distribute dina dem all over Sweden England America all over Germany incha allah beneen bi tam ñu def ko loolu ok taacu leen ma seen boppa taacu leen ma seen design si rafet na trop jërëjëf thank you Adja Mayo Tuesday sun contract bi thank you taacu leen ma président bi bu baax a baax thank you very much on that note We're saying thank you very much for staying with us, watching South Connect, St. Tobaski 2013 live on GRTS. This is Gerem GRTS Management, Alhaji Lamin Manga, for giving us this opportunity, South Connect on tonight. Allah Barka Bake, Momaba GRTS Jivela, South Connect Felejan, St. Tobaski Wolum Beatting. Inshallah, December 22nd, my St. New Year. Wofan and Binala with different, different, different kind of things. Self-connect. Thank you very much for your time. Allah Baraka. E credit itwodima ah, sin fo baccine yaɗon afrisal ye kuule bonde men credit a fo mo kukudole to ha isi credit o ɗon tono afrisel bulla aɗa yite feñjola e eh, afrisel ala barka omo ku Africell Colore Credit. Now, you can borrow up to $50 with the Africell Colore Credit. If you have been using the same Africell number for a period of one year or more, you become eligible to borrow Colore Credit for every Africell loyal year and for no extra cost. To activate your Colore Credit and know how much credit you can borrow, simply send a blank SMS to 152. You ran out of credit? Worry no more. With the Africell Colore Credit, you can make calls even when you don't have any butut in your account. And the next time you recharge your line, you will return your cholera credit with no extra cost. Keep using the same AfriCell number and your cholera credit will grow every year. AfriCell Cholera Credit, only on your AfriCell line. We wish you a happy Good evening, wonderful viewers, and welcome to another Ram draw with AfriCell. And as usual, we come here from Mondays to Friday to do draws for 10 lucky AfriCell subscribers who've been calling 1010 or sending SMS to 1010 for $10 is only. And AfriCell will give you back three free minutes that you can use to call any AfriCell subscriber of your choice, valid for that very same day. And it is not just those of you who are calling because you have an AfriCell line, and uh, also for